xamante ne voilà euh, madame Yacine Fall nga nekk jigéen ju am taxawaay ci opposition bu Sénégal tey ngeen amal jotaay fi ci siège bokk gis-gis gi ndax mën nga dikkaat ci jotaay bi ndax sànq tamit waxaat nga lu am solo ci taxawaay jigéen ñi ak surtout tamit weeru mars nga xam ne saay bu teroo rek mel na ni Sénégal dafay am luy répété wu ci ay jàppe yoo xamante ni dañ ko jëmale ci ay opposants yoo xamante ni xëy na ñoom i tamit dañoo bëgg amal réew mi njariñ waaw xam nga li ñuy wax tey rek mooy rek tey boo ko seetloo tey société civile parti politique yi Euh, kii euh, ah, ah, euh, député yi mhm. mouvement citoyen ñu bari ñoo fi daje tey daje fi tey pour taxaw nekk benn say fekk si ñi ñi defoon réunion démb ci siège u Pastef ñu nekk benn say jànkonteeg Macky Sall mhm. jàkkaarloog moo ko ni ko Sénégal ñoo ko ko gën a bëgg mhm. te jaral na nañu lu nekk loolu mooy wax ji moom Macky nag dafa tàmm ñeenti at yu nekk rek mu faagaagal benn leader bu mag 2013 3 mars 2013 jàpp na jàpp na jàpp na Karim Wade 3 mars 2017 mu jàpp mu jàpp Khalifa Sall 3 mars 2021 mu mu jàpp Ousmane Sonko ñetti 3 mars la bu ci dee ñeenti at moo moo ko séparé te am na luñ ci wax loolu ci ñaaw tef di ko def ci yooyu bés ak séparation ñeenti at yi ci séparé yi ci yi ko wax sénégalais yi ko xam dinañ xam lu ñu tekki mais ñun loolu tiitaluñu senegal gii Macky Sall moomu ko ay maamam moomuñu ko peuple sénégalais moo ko moom ba ñu koy fal lu ne raam na ci suuf maq na suuf ñaan ñu réew mi lu ne wax na ko tey nag mu defee ni moomam senegal ba du fi amee te jigéen ñi sénégalais yi nee nañ ko na bàyyi di utiliser mois de mars mu nekk mois boo xam ne ci lay faagaagal opposant Macky Sall ragal la Macky Sall mbër mu ñemewul bëre la Macky Sall ak dina xam ne te danañ ko danañ ko teg ci li jële ci jële ko ci njiitu njiitu réew mi jànkuwanteeg moom dina génne Ousmane Sonko léegi léegi léegi léegi léegi léegi. kon ngeen nar a wéyale combat bi balaa ñu laa bàyyi nga yooyee ko rek. ëllëg li ngeen jot a tënk tey ci daje tey. ñi ngi woo góor ñi ñi ngi woo jigéen ñi ñi ngi woo mag ñi ñu taxaw taxaw waxante ak jàkkoor nag Macky Sall wan ko ni ko ragaluñu armée Sénégal ndax armée Sénégal Sénégal la ah, police sénégalaise Sénégal la gendarmerie sénégalaise Sénégal la suñu doom la ñuy dellu suñu kër te ñoom ñëpp ñu ngi parce que gis nañ ay nervi armé wu yore ay mbolde ñëpp ñaawlu ko te duñu ay sécurité mu mel ni ay milice privé lañ di wàcc di dóor askan wi ñëpp gis ko lu ne mel noo ko jàngatee di fëm yi mu utilisé woon ci élection yi ba ñu attaque Ousmane Sonko Mbour attaqué ko Casamance attaqué ko fu nekk ñoom la moom la moom la génne wat mais tey jii fur bu dinañu seen suñu di muñu nañu seen sutura parce que xam nañu fu ñu leen jëyee xam nañu fu ñu leen formé gars yi yénn nañu seen i liste kon nag ñoo ngi tey defe naa ni tiit nañu te xam ne xaalis bi ñu leen fay muy péppi dërëm rek jarul ñuy jaay seen bakkan wala ñuy yàq ñuy yàq seen réputation wala ñuy xeex seen i mag kon loolu jeex na dootuñu ko nangooti Macky Sall moom baye moom mu xam ne li ñu naan c'est le la fin daanoom tàmbali na ba mu laale Ousmane Sonko la xam ne laal na laalaake te du continuer Sénégal yëpp nañ ko ko démb te day continuer jërëjëf kon euh, Seydina euh, euh, ñu ngi jaaj